alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan sakartu li annahu qad saaxani li watanin bi nafa maaxani وغادني لي بالتخلي من بعد ما خسب بي تخلي وجرني في إلى العلوم njabootug Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke gi ci njiital ki nga xam ne mooy xalifaam di Serigne Abo Baraka ànd nañu ñoom ñëpp amal ziar bu mag ci kanamu xalif général de Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou ci alxamis ji dëppoog le 16 juin 2022. ñu fekk sëriñ bi ci këram gi nga xam ne moom moo nekk daarul minan mbooleem njabootuk cheikh Mouhamad Fadal gi ànd ak ndongo yi ñu jébbal cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou addiye joo xam ne xayma nañ ko ci 236 millions de francs CFA mu nekk addiye joo xam ne at mu jot njabootuk cheikh Mouhamad Fadal Mbacké gi daañu dem ci ki fi nekkal cheikhul xadim jébbal ko seenub addiye jaayantewaat ak moom feddaliwaat seeni laxasaay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 عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك ci turu sunu jëwriñ muy sëriñ Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak turu jëwriñam sëriñ Basiiru Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak turu ki nga xam ne moom la jox kàddu kër gi muy sëriñ Abdul Fattah ak rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal yëpp ak doomam yëpp ak mbooleem taalibe yëpp ak lenn ci njabootu suñu fallu ñoo teew si nii tey ci sa kanam ànd ak mbégte lool mbégte moo xam ne xam nañ ne bala ñu ko amati dañoo amaat bés bu mel ni bii buñ dellusiwaat ci yow rek teewaat ndax na mu la ko waxe woon rek Mbàkke yow mbégteem kese nga. ku la jub rek. nga ree ko. mu ne ree nag moom. mbégte lañ ko xamee. kon nag Mbàkke bigaat nañ ci yow bu baax. sëriñ Abo ngi lay nuyu bu baax. mais mi ngi lay xamal ne. noo ngi feddalik laxasaay. na ànd ak njabootu sëriñ Fallou gépp ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp. topp ci sa ginnaaw. di déglu say ndigal. waxtu wu ndigal ñëwee rek. fekk na ñu jekk bu yàgg. mi ngi mel ni ni ñu koy waxee ne bu ñuy wax euh, wadd leen fekk na soccet jàttu ba toog ci tànkam rek. neen foofu rek lañ nekk ci yow de. mu ne kon nag nga na nga ñaanal nu. nii ñu la yéenee liggéeyale ci barkeb Serigne Touba sunu borom may nu def ko ni ko bëggee. addiye ji nag xeeb nañu ko lool nag. lool nag sax waaye nag nga ñaanal nu ba bu nu jógee fii jaajuwaat rek. ba bu nu fi dikkaatee ni nu fi andi mu andi ñaaram ñu andi ñettam ndax am nañ yéene ja nga ñaanal nu rek nga ñaanal lu ci sa barke noo ngi ñaan ci sa barke boo nu ñaanalee ci sa barke li nu bëgg danañ ko am kon nag Mbàkke noo ngi niyeeti rek noo ngi am mbégte faaw rek nga ñaanal njaboot gi yëpp njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp ak jullit yëpp ñaan jàmm ci réew mi ñaan ko ci Afrique ñaan ko ci Europe ñaan ko ci fépp rek addina bépp rek ndax addina li muy rëy rëy yow mii yaay sëriñ Tuubaa kon nag yaa gën kon nangu yaa gën ku bañ yaa gën te boo ñaanee rek yàlla dana ñu dimbale ak jàmmam kon Mbàkke dimbale ñu ñaanal ñu ñaanal sëriñ Abo mii mu yàgg fi lool ndax yow rek la bëgg xoolul kenn yow rek lay déglu ci lépp nooy ñoo ngi raxasaayu ci gannaawam di fas yéene liggéeyal la rek kon nag Mbàkke noo ngi niyeeti rek sarax nu rek dimbale nu ñaanal nu ñu am lu ne gàññi rek ba saa yoo laajee rek ñu mën a ñoqi joxe nga ñaanal nu ak wér ak nekk fi ba saa yoo ñu liggéeyloo ñu mën a liggéey ba ñàq ndax loolu rek mooy yoon wi kon nag Mbàkke jërëjëf ñoo ngi jéggalu kat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw sëñ bi nee moom itam te lu muy wax waaye am na ci na mbégte moo xam te ne bii nee na leer na ko nii ko suñu laa waxee rek bu amaatee mbégte mi yéen a fi teewaat nii ngeen fi teewee rek. waaye dama ne daf yi dëxëñ nag mel ni. li mu weesoo ak li jëm ci kanamam lépp sama aajo faju na ci yéen ci jotaay bii. ndax yitte ji jenn la muy sëriñ bi rek ba ma daataa si fii ci samay gëstu ak samay xalaat ak samay xalaat ak samay bëgg-bëgg ak sama sóobu laa jële woon ca loola wax leen wax ne njabootu sëriñ Touba suñuy jëggaani ak taalibe kër si yax Mouhamadul Fadal la ñuy dem ne loolu ba ma ko waxee du tey te loolee rek ca laa nekk nii. loolee nekkoon ci man nag. ñooñu Cheikh Ahmadou Fadal teew fii. ñooñu Cheikh Ahmadou Fadal teew nii. ci sama diggante ñoom. sëriñ bi nekk ci sëriñ bi nekk ci. nekk nekk nekk nekk ci sunu kanam. nekk ci sunu kanam. nu teewal ko nu teewal ko. sunu digganteeg sunu borom. loolu. man amatuma. man amatuma. lenn lu gën a. jébbale sama bopp jébbale sama bopp. la sama kawari bopp yi ba ci sama wu tànk fii. maa ngi koy gën a jébbal sëriñ maa ngi koy gën a jébbal sëriñ Tuubaa di ko seereel suñu borom mi nga xam ne mooy lépp kon nag alhamdulilahi rabbil alamin sama xol sedd na guy sama xel dal na ratiix dal na ci sama kanam ci bu ma nekkatul ci bu ma nekkatul dal na ci sama xel dal na ci sama kanam dal na ci sama kanam dal nañ sama kanam dal na ci sama ngir jotaay bii rek. Eh, lu rëy ci man lu ci man la. lu ma teewlu la lu la. dal sama xel lu dal sama xel la. lu sedd sama xol la. kon dafa mel ni sama aajo faju kon dafa mel ni man sama aajo faju na. waaye loolu lépp dama koy fabaat nag. ni ma ko waxee woon léegi rek. gën a jébbale sama bopp gën a jébbalewaat sama bopp. ci sama lépp nag rek. sama lépp. maa ngi leen di seereel maa ngi leen di seereel ne maa ngi koy gën a jébbale di ko gën a jébbal Serigne Touba kon nag alhamdulilahi rabbil alamin liggéey bii moom rek fi nekk moom rek a fi nekk leneen nekku fi liggéeyal Serigne Touba rek a fi ne moom fi nekk soxlawuñ dara it lu dul liggéeyal ko rek alhamdulilahi nag rabbil alamin fa tabaarakallahu la ma waxoon la ma waxoon feeñal ngeen ko ci ci taxawaay bii loolu man mi waxoon loolu loolu man mi waxoon loola gën na ma waxaat gën na maa waxaat loolu fa tabaarakallaahu liggéey bi bi ma ci accès bi ñu tàmbalee moo wax ne nañ nekk ci liggéey bi moo wax ne nañ nekk ci liggéey bi ma bëgg ñu doxale ko. waaye man ni ma bëgg ñu doxale ko ni sama sama sama sama sama sama sama sama yittey bopp. sama yittey bopp. sama yitteelug bopp. damaa bëgg waxtu wu ne. milliard nekk boo xam ne. milliard di nekk boo xam ne. milliard na fi na fi milliard nekk boo xam ne. na boo xam ne. dafay fekk liggéey bi dox. dafay fekk liggéey bi dox rek. milliard bi moom lu mu néew néew. nekk lu ñu sukkandikoo bàyyi fi. mu lëg te baa ngay dox. waaye milliard baa ngi nii di tege ci wetam. ne noonu rek laa jógee woon. nee léegi nag xam naa fi mu ne ne. wóor na ma ne. bu àndeeg lii fi nekk. ñetti milliards yi dana tegal. yoo xam ne liggéey baa ngay dox moom na mu war a doxee. mu nekk ci wetam rek mi ngi fi. ci ci liggéeyub Serigne Touba ci liggéeyub Serigne Touba bi rek. weesuwul sëriñ bi. sëriñ bi. ak liggéey boppam bi. nga xam ne. mi ngi tàmbalee ci njabootam. mi ngi tàmbalee ci njabootam. bokk mboolem bokki taalibe. ak mboolem bokki taalibe yi. mboolem yaakaar ñi ak Serigne Touba. ak mboolem ñi yaakaar Serigne Touba. ak mboolem ñi koy dégg. ñëpp ñu ngi ci ci ci liggéey bi. ñëpp ñu ngi jë liggéey baa ngi jëm ci ñoom. waaye bu sémb yu tegee fee ba noppi. li ci des lépp itam ci mat a def rek daan ko def ci loo xam ne dafa aju ci njaboot bi aju ci bokki taalibe yi aju ci lislaam bi ci jullit yi aju ci néew doole yi yaakaar sëriñ Tuubaa ak kilifa yi nga xam yaakaar nañ ñoom ñëpp dañoo bëgg liggéey bi ne fi lépp di dox nam war a doxee rek loolu nag mi ngi doxee noonu loolu nag alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi rek la mi ngi fi du fi jóg mukk moom rek noo ko fi nekk nu ko bëggee rek nu la ko borom di defee kon nag suñu xel dal kon na suñu xel dal suñu xel dal na ci bu baax suñu xel dal na ci luñ jëm noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen bëgge te leen wettali ko di di di di di sukkandiku ci yéen di sukkandiku ci yéen di ngeen xam ne kat fii nu tol nii ci dañuy wax ne may seen kilifa waaye man kat yéen njabootu sëñ Tuubaa gi yéen njabootu sëñ Tuubaa gi rek ci moom génn gis rek ci moom ñooñu kat ñooñu kat ñoo ñoom sama at jëmm ji ñoo sama jëmm ji ñoo koy atte ñoom laa ko dénk kon loolu le li koy firndeel nag moo di ab taalibe rek la maa doon dara bu ànd ak bokki taalibe lu dul ab taalibe bu ànd ak bokki taalibeem fas la liggéeyal Sëriñ Tuubaa taalibe bu ne nag am na xemmemteefu génne addiyaam di ko jox sëriñ bi man nag sama addiya yéen waa kër Sëriñ Tuubaa yii <coughs> eh, <coughs> eh, eh, nga xam ne ñooy kilifa yi ne ci gën sañ Sëriñ Tuubaa gi gi nga xam ne wujj nañu sëriñ Tuubaa gi nga xam ne wujj nañu sëriñ Tuubaa seen njaboot ne fi samay addiya samay addiya yéen ñii laa koy jox kon sama jëmm ji yéen a yor atte bi kat ni ma leen yilife ci saayir ni ngeen ma yilife ci baatin kon nag Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf yàlla na fi yàgg dëgër leer bi sëriñ bi nee na li nga wax déggees na ko waaye kat yow mii kat Mbàkke yaay sunub sëriñ nun kat ay taalibi lañ de nangul nan taalibi gi de nangul nan la nangul nu sunub taalibe loolu lañ bëgg nga defal na ko boo nu ko nangulee rek daañu texe tey ak ëllëg alhamdulilah rabbi nee nangu na ko bu baax a baax a baax a baax amiin alhamdulilah rabbi nee nangu na ko te fas yéene ko ànd ak yéen ci saayir ci baatin ci xel ak ci ruu ak ci jikko ak ci jëmm alhamdulilah lépp lépp danaa ko ànd ak yéen alhamdulilah danaa fab sama lépp daxañ ko ci parce que suñu diggante ak Serigne Touba ànd ko ak yéen alhamdulilah jërëjëf waaw alhamdulilah.